activité de grande envergure lay doon di soxla ay chir sonorisation te jii nii dañuy ne waaw loolu moom réglé na ba pare mais nag ñaax nañ encore mu gën a defaat encore ñu gën a defaat si si étudiants am liggéey te jii nii ndaw boo gis nag étudiant bu géeru day bëgg liggéey si société minière yi daanaka xam nañ ñëpp mën nañu liggéey si société minière wante mais am na ñoo xamante ne tey si ñun am nañ compétence ak profil bi té ñu leen gëna ñaax tamit ñu bayyi xel ci ndaw ñi ci madan notamment étudiant yi mom tamit vraiment e comprendre nañu té néna vraiment da ci dem kën ko talayam xamantene da ci mëna da ci mëna def dara ndax ñu mëna gis suñu bop ci ci ci sauté minière aussi ci walum vraiment am di danaka moy di eh, patrimoine pour ñu étudiant yi kédu néna encore dina dina ci waxtaan ak président conseil départemental bu kédu ak wa société PMZ ndax ñu mëna ñu mëna am ben consensus jënd terrain bobu jagdal ko étudiant kédu ñun en tant que société minière nek Kédougou nga xamni ni Kédougou ñoo dalal fofu permettre ñuy liggéey di produire or bi ñuy produire euh, d'ici fay ay lempo aussi d'ici mëna tedd ñom ñun aussi ñu delloo leen cër bobu sen sen région may ñu foofu dans la région de Kédougou motax ñun ñu ngi si liggéey ak euh, association bi ñi ko jité ak euh, étudiants yépp pour xol nu ñu mëna def ba yombalal leen sen nekkin à Dakar

day xaw a jafe bu ko amalee seen bopp ñoom mun nañ ko gérer seen mun nañ ko sax ñoom seen bu keneen soxla ku ñu loué ko am au moins tuuti loo xam ne mun nañ leen jàppale si ay frais yu ndaw donc loolu ñun aussi biñ ñu jotee ñu xam ni c'est pertinent lu am njëriñ la lu leen amal njëriñ la euh, ñu taxaw si tey nag le matériel bi ñëw fi euh, ay chaise la ay ordinateur am na groupe électrogène ak matériel de sonorisation loo xam ne mu ngi ñu dikkee ay 4 millions 500 000 la ñu indi woon tey joxe ko ñu profiter wala discuter waxtaan ak ñoom lu ñu yàgg def ak ak ak ñoom euh, pour yombalal leen euh, seen jàng ak aussi ñoom aussi am na leneen loo xam ne aussi yitteel na leen trop boy jang da ngay bëgg foo defee stage parce que stage mooy tax nga am pratique hein parce que boy wut liggéey def sa CV dañuy naan expérience professionnelle foo mën a liggéeyee foo foo au moins dugg ci entreprise donc ñu xool aussi naka lañ leen di yombalee chaque année ñu wutal leen ñoo xam euh, si association bi wala ñu joggé kédugu am stage ci mine bi lolu aussi ñu ci liggéey ba paré aussi bo amé ça wala bo paré bëgg nga xey ñu xol aussi Sabadola naka ñom la ñuy mën a liggéey bu ñu euh sen jang bon li société nak mu nekk mine wala mu nekk benen société euh, do joxé liggéey rek pour joxé liggéey da ngay jox liggéey parce que sa entreprise daf ko soxlo parce que booy doxalee à sa entreprise bi day daan donc liggéey yu fa amone sax day mujj ñak lolu aussi entreprise bi da ci baye xel trop lu am solo la mais ak lu si mënta nek ñun am nañu junni ak juroom ñetti téeméer liggéeykat yu nekk Sabodala xaj bi yépp région de Kédougou la jóge lool aussi c'est important donc ñun bu dé tay suñu entreprise mu ngi défar xaalis di performer ñoñu ño tax ñu performer war nañ leen delloo njukkal té ça montre que am nañu performance tax nañ ba entreprise donc ñu dañuy sawar jëlaat encore yeneen employé ñu jógee si Kédougou ñi jappalé ak communauté parce que ñoy suñu njaatige ñun seen ay seen ay suuf la ñuy jël parce que aussi seen ay tool des fois mine bi dafa am fu mu war a dox même bu fa tool nekkee il faut ñu négocier vrai que dañuy fay boo jëlee nit ki dañ koy fay mais fay bi rek du si yem boo jëlee doomam liggéey wala yooyu c'est très important pour nous donc loolu priorité la pour ñun am nañ si ay plan yu leer ak ay programme ñu siy liggéey dinañ ko communiquer ak euh, étudiants yi dinañ ko communiquer ak ñu dul étudiant sax ñu fa nekk di wut liggéey parce que du étudiant rek mooy wut liggéey donc ñu fa nekkee ñu xam ni suñu mbébét suñu pas-pas mooy ñu nekk Kédougou gën a bëre gën a ful di liggéey si mine bi loolu aussi dalal seen xel en tout cas euh, du ñu mun a nag wax ñëpp ñu wut liggéey dinañ leen wutal foofu mais daal suñu priorité suñu mbébét mooy ñun en tout cas bu ñuy jël ay employés bu dee waa gu ñu ngi foofu am nañu profil boobu ñoom la ñuy njëkk a xool balaa ñuy jël balaa ñuy jël keneen voilà loolu daal lañ si waxoon bu dul loolu aussi am na yeneen yoo xam ni waa Kédougou mun nañu jokkalante. jëfrante ak min bi lu dul rek emploi euh, salarié loolu aussi yeneen la yo xam ni parce que min bi day jënd min bi day liggéeyloo yeneen entreprise euh, day soxla ay euh, ay ay marchandise ay bien donc nit aussi bu dee kee dugub boo peut être amoo diplôme wala yooyu wala bëggoo sax nekk salarié ti wa indépendant mun nga créé sa activité min bi yombalal na booy liggéey di la jox ay contrat nga mun a liggéey ba nga xam ne yow sax mun nga créé ay emploi am sa ay activité yooyu yëpp